yenn woto yi dañuy dawee ndànk diram ña ca des ñoom dañuy taxaw ndax amuñu fu ñu jaar moto dóoru yi di daal di ut porox ndoll ci biir woto yi ngir am fu ñu fële rek ngir jàll des sax nga seen ay charrette ci kaw tali bi loolu yëpp daal di booloo doon ab embouteillage bu métti 18 bu jotee mu nekk heure de descente ñibbi sa kër daal di doon jafe-jafe bu métti ñenn ñi sax duñu daal di bëgg dawal seeni auto personnel. sa embouteillage bi métti na trop tous les jours c'est comme ça. suñu mënoon a am yeneen solution dina baax trop parce que ñi par exemple man fii laa dëkk cité Sonatel mais maa ngi jóge fii tout près su ma jëloon taxi dañ may euh, facturer lu cher or que distance bi soriwul mais embouteillage bi moo tax cherté facturation boobu si arrêt bus yi wala arrêt car yi mu bari nit lool ku nekk di xaar sa oto balaa ngaa gis sa oto bi nga xamante ne da lay yóbbu fi nga jëm di nga xaar luy yàgg mu nekk lu métti loolu loolu sabab sax am na ñi xamante ni dañuy préférer daal di dox lu mu gudd gudd ngir yegg seen kër xale bu jigéen bi daal di doon ab étudiant moom sax léegi tàmm na dox université yi ba seen kër. maa ni si védéen bi laa doxee ba yegg si ba fii metti kase metti metti. embouteillage bi moom wax dëgg fa neex yàlla yokk ay pont te ba pare embouteillage bi taxul mu wàññeeku war nañ koo xoolaat bu baax solution bi mooy oto xanaa ñu yokk oto biis yi ba pare am na oto yoo xamante ne ñu xool oto yi heure bi ñuy daw heure bi ñuy daw heure tamit parce que ñun ñëpp buñ jugandoowee duñ gaaw a yegg ñu jëm embouteillage bi ni mu méttee si ñi nga xamante ne ñooy passager yi noonu la méttee ci chauffeur si ñenn ci ñoom dañuy daal di éviter yenn zone yi sax ndaxte dafay bari embouteillage lool ci yenn heure yi looloo sabab ñoom ñoo ngi woo nguur gi mu yeggali ay chantier yi nga xamante ni nguur gi da koy def ci kaw tali bi ngir circulation bi daal di jaaraat yoon. dañuy ñaan daal vraiment daal yoon yi mi ngi defar nag nañu jàppale daal vraiment kut kut kut mu àggale ko ci jàmm ak salaam ubbi pont yi ku nekk mën a jël sa yoonu bopp daal wax dëgg. xat na boo xamante ni bii yi wax dëgg yàlla bëgg nañ dem te mënuñu dem sincèrement wax dëgg yàlla mais clients yi m sincèrement wax dëgg yàlla ñoom ñoo ngi fay lu ñu mën. mais ñun chauffeurs yi amuñu fu ñu jaar wax dëgg yàlla te métti na lool te vraiment suñu consommation gasoil yi léegi dafa gën a yokk vraiment métti na ndax embouteillage bi foo waroon dem léegi 10 minutes daanaka presque dañu fa def une heure de temps doo jàll lii di embouteillage doon ab problème bu rëy ci Dakar mu daal di métti ci ñépp boobu li embouteillage tàgga lool li nga xamante ni mooy dem bi ak dikk bi daal di sooxe lool comme gi tamit li si gën a yéeme nag léeg-léeg mu provoqué ay accident yu grave mu bëri nit yu ci faatu dégâts matériels yi loolu moom foog ko natt weesu na ko